ah man day gisoon naa discours bi nga xam ne jotoon na période bi gaa yi di jóg période mars ñëpp di xeex ma déggoon naa sëñ Maay Ñas wax déggoon naa xalif euh, murit euh, sëñ Mountakha yàlla na fi yàgg te wér wax ñëpp déggoon naa leen ñu wax ne ñoom ñëpp ñu wax defal ñi ñi daal mais bi yoon nii nag aska wi sonn nañ sonn boo xamante ne jàpp naa ni defal leen tamit dina lu ñuy xoolaat la donc mun naa kon suñu du kon su ma la déggee si gàttal euh, màggal euh, am na gàmmu am na dañuy aussi politiciens yi euh, genre événement yooyu bu amee ñoom ñëpp dañuy mbiw dem si kër sëriñ si kon donc mun nañu wax ne opération de charme la nekk di def aussi. mais loolu laa loolu mooy problème bi sax au fait xam nga moom laa expliqué l'autre jour xam nga France njàpp France lii moo fa xewoon lii xew moo amoon France. France la révolution française li ko indi mooy France ñëpp a gëmoon yàlla église bi ak ak ñoo doon lëkkaloo église bi ñëpp ko gëmoon léegi nag buur bi noot askan wi ci lekk noot leen ci naan ñu sonn amuñu jàmm lépp ci buur buur bi la yem ak seen ak ak ak seen seen église bi ci te nit ñi dañu gëmoon prêtre yi prêtre bi léegi nag bu église bi waxee ne toog leen ñëpp toog buur bi di noot nit ñi rek bañ sonnee nag ba gis ni vraiment li ëpp na ñuy rey jigéen ñi ñii bu ñu génnee di uti sax lu ñu lekk ñu leen di rey askan wi jóg gàddaay songu buur bi songu église bi faat ñëpp teg la révolution française franc-maçon yi profité si loolu laa yaxal Sénégal te message bi c'est pour tous les marabouts muy sama sëriñ sëñ Maay Ñas muy sëñ Mutaxa muy xalif euh, euh, Tidiane muy beneen xalif ak ku mu mën a doon képp koo xam ne yow ak waa jàngu bi koo xam ne kilifa nga kilifa diine nga nga jiite nga xam ne xale nga xam ne Sénégal ñëpp a ngi lay déglu ngeen am baat parce que man wax ni euh, religion tarixa yi institution la Sénégal dañu fi am baat ma ne ñoom message bi ma leen lancé man en tant que Abdou Karim Gueye en tant que taalibe ndax man ñun ay taalibe lañ ñun bu ñu ay taalibe Baye lañ wala ay taalibe Tidiane Tivaouane wala ñun la jeunesse sénégalaise ma ne message bi ma leen di wax mooy nañu dimbali balaa ñi ngi seetaan Macky Sall mu nekk di noot askan wi ñuy pàccoo àllu réew mi ñi di sonn buñu ñu duñu faju enseignant yaa ngi jooy médecin yaa ngi jooy jafe-jafe yi Sénégalais yi di dund mettit bi ñu dégguñu ak Macky Sall li mu nekkee gis nga ko ma nga Dubaay di dem di def yu xam ni ay doyadi yu amul benn solo te ñu ngi gis ñoom bu dara jotee duñ def lu dul dem toog ci wetu sëriñ si rek samp seen i om toog si nag bu ñu waxee askan ñun ñu déglu leen te ñun li ñuy dund vraiment sëriñ si yëguñ ko kon jot na nag buñ ko yëgee itam waxuñ si kon jot na ñu bàyyi ñu xel waaw balaa askan wi di jugaat di dal ci kaw Macky parce que Macky faalawul sëriñ si faalawul askan wi. si Dubaï boobu laa bëgg Karim ñu des euh, bien vrai que exposition moo fi yóbboon délégation bi nga xam ne euh, président de la République euh, def na ko mais dafa mel ni aussi Mumbaay leen fa seetlu mu mel ni comme aussi li ngeen di xeex yéen activistes yi salfaañe alali askan bi kii président de la République ak i gouvernement ngam loolu leen fa wane. ma

man kilifa diine laay waxal ndax kat nañ ñu bàyyi xel ndax askan bu jugaatee goo ay ndigal na tax ñu toog de ndax li ñuy dund nii wax dëgg yàlla ëpp na te ñaawalaate bi état du Sénégal nekkee foowee jël passeport diplomate di jox ay góor jigéen loolu kilifa yëg nañ ko tamit jël passeport diplomate di jox ay seen di dem ay yóbbu jigéen ay suite di foowee alu réew mi gis mais loolu loolu ñoom lan lañ siy wax ñun ñi nga xam ñooy la jeunesse ñi song ñun lay am ay sérieux problème pour génn Sénégal donc loolu moo tax ma message bi ñuy lancé kilifa yi kilifa diine laa koy lancé man du ma wax ak Macky Sall ndax Macky Sall lestek mu bëgg langaamu ci kilifa yi te nooteel du ñu nangu aussi tamit guide spirituel du ñu noot tamit mënuñu waruñu nekk ay esclavage spirituel waaw euh, sànq yaa ngi koy tudd réewum France élection yi mu ngi fay waaj a am kii di Éric Zemmour mu nekk koo xam ne ñëpp xam nañ si li nga xam ne mun nañ ko tuddee racisme à chaque fois rek muy am ay euh, kàddu yoo xam ne yu ñàkk teggin yu muy amal teg ko si euh, li nga xam ne mooy diine l'islam tey ji nga xam ne Medina Baye mun nañu wax ne carrément c'est international di nga fi gis tubaab bi di nga fi gis ni ku ñuul ki di nga gis yeneen nationalité yoo xam ne sax dooloon xalaat ne am na fi mhm. tey ji Éric Zemmour jàpp ne l'islam catastrophe la wala sax religion de violence Medina Baye euh, dàq loo xam jooju. waaw non cest à xam nga xam nga France li mooy li Bagnès waxoon ci France rek France dëkk boo xam dañoo tayal ci diine la France dëkku naafeex la xam nga tubaab ñoom en réalité xam nañ ni le moon évolue te léegi ci croyance ci ngëm la ñu mën a langaamoo léegi nag xëccoo la rek léegi nag dafa am ëxlu seytaan ak ëxlu ëxlu euh, bi nga xam mooy jëm ci yàlla léegi nag nit ñi moom léegi nag xëccoo la rek nit ñu baax ñi dañuy lu fexe ba wommat seen xeet ci diine ñeneen ñi sàggan nekk ay franc-maçon comme suñu njiit yi topp tubaab rek loolu moo fi nekk léegi li am solo dëgg dëggantaan mooy dama bëgg sénégalais yi xam ne ñun chance bi ñu am ñu xam ko chance bi ñu am mooy mag ñi ñu am Sénégal loolu du lu ñuy foowee certes nag li mag ñi liggéey kenn mënu koo yàq dëgg la mais ñun dañ ñun taalibe yi ñoo doon mag ñi ñun nag ñoo war a taxawee taxawaay boo xamante ni ci diine bi ci ci doxal ci wàllu politique ci lépp ñu fexe ba loolu li ñu tarbi ñu amal ko te tubaab bi ñoom seen politique lañ yor ak seen programme di ko dugal fépp foo xam ne ñoom am nañ fa mainmise économiquement ni ñuy noote africain yi noonu la ñuy noote aussi religion yi ah te bu ñu sàgg ne dañuy no dañuy yàq suñu àdduna yàq suñu àlaxira yàq suñu àlaxira mooy mooy yàq suñu àdduna mooy mooy mooy mooy ñu jëriñ suñu économie yàq suñu dëkk mënuñu am visa si ñoom mënuñu am dara ñu jàpp ñu noot ñu jël léew yëpp yóbbu ko def ñu esclavage néocolonisation colonisation lu la ñu def ko yàq suñu àlaxira nag mooy ah ñu dem ba di sukk suñu suufu sëriñ si dem ba yàq suñu xale yi njëkkanteeg ñoom si république bi nga xam ne xale yi léegi daanaka bu ci ñoom sëriñ si jàppuloon tey ay formation la ñu nekk ñi ci ëpp niveau intellectuel bi ñu ñori noonu ñi respecté cinq prières yi sax du bari léegi xëccoo boobu nag la mag ñi doon def ñoom te loolu la ñu a yeggali. sommet France Afrique France euh, ñu gis ne aussi euh, ay ndaw euh, <laughs> ñëw neen fa mu mel ni comme Abdou Karim comme ni ngay wax rek France Afrique bi dafay wéy di teg tànkam bu baax Sénégal fii nga xam ne mooy Afrique te est-ce que jaadu ay jeunes ay yoo xam ne rek mun nañoo wax ne ay leader d'opinion d'Afrique ñu war a lijjanti problème continent africain si réew. non loolu moom Ndiab wax nañ ko waxaat ko c'est-à-dire sommet France Afrique loolu kookali la quoi. pourquoi Macron lu tax France lu tax moo war a toog ñu koy wax et puis gars yi man les activistes là ils n'ont rien compris pourquoi ñu war a ak Macron en France pour moom Macron moom la ñuy wax pour expliquer exposer ko wax ko ay parlement Afrique d'ailleurs loolu ça prouve sooy France Afrique day leeral rek ni ba ñun ñu ngi esclavage quoi loolu lay wane rek day wane ni ba léegi même mise bi néocolonialisme bi que ñun ba tey parce que ñoom dofuñu ils savent que ni les africains ont tourné le dos à leur euh, leur dirigeant que xam nañu léegi ñoom Macky Sall ñoom Ouattara ak ñoom ay c'est des marionnettes alors léegi xam nañu le peuple africain ak les France dégage ak yooyu ay ñoom Kémi Seba Afrique ñi ñu comprendre alors ñu ne communication bi dafa war dem si africain bi africain nag malheureusement a faat Macron faalewul africain li ko gars di wax noonu ci sommet bi moom gars xam nga moom moo yor kii bi moom mooy joué affaire bi yor euh, euh, kii di joué loolu yëpp moom la ils sont courant de tout lépp lu xew Afrique xam nañ ko te France moo koy manigancé armée française lan dem Touba dem Touba ci biir ziar sëriñ bi lu tax DG Total dem di ziar yi màggal parce que xam nañ actuellement dañ euh, jeune africain dafa am ñu ñu gëm Sénégal dañoo am ñu ñu gëm te léegi jeunesse bi rek ñoom lañ ciblé te a conscient le combat continue gën a dëgër France à la coulée France dégage légalisation avortement si ma inceste ak lii nga xam ne mooy viol aussi a Karim nañ ci wax est-ce que débat bi mun na war nay mun a yem rek euh, si wàllum ONG Jamra ak euh, ak féministes yi pour ne pas dire euh, si wàllum ñu tënk ko si dig dig ne est-ce que Sénégal tey jotul ñuy ñuy débattre aussi si ay des choses. mais Ndiaye xam wax naa fi wax naa def na émission maa ma ne loolu programme boobu noonu programme Nations Unies la te mi ci table Macky Sall mu ko te balaa muy wàcc pouvoir dina fexe ba jëm ko dugal Macky Sall loolu programme am la lu mu diggee tubaab bi la def góor jigéen moom ragal rek moo tax defagu ko avortement médicalisé programme am la ñuy femmes féministes yi ngay gis yëpp bien financés waaw non non non Abdoulaye Wade signé woon na ko depuis le protocole de Maputo mais problème damay la maanaam ku ak fi engagement yi ngay jël Abdoulaye Wade dafa bàyyi loxoom après dellu ginnaaw mais Macky moom da xam moom day jaay dëgër bopp moral lu ne di ko daw mais dama bëgg sénégalais dëkk suñu code de la famille defar suñu suñu Sénégal defaraat suñu institution suñuy constitution ba nga xamante ni daray tubaab bi du mën am accès di yàq suñuy valeur tout à fait ñu jeexalee Karim ak benn question xam naa ne waxtu bi xoj nañ ñu julli bi jot na mais euh, violence bu ñu seetlu aussi si politiciens yi euh, ñu gis ne carrément keroog foofu la si Ziguinchor euh, ñi ngi féetoo ak Doudou Ka ak Ousmane Sonko am na fa jàmmaarloo bu métti est-ce mm. tey politique Sénégal fu mu toll nii loolu leen soxla ay kilifa yoo xam ne rek ñuy sànnante xeer wala sax ay jeunes yuy tojante ay bopp mais Ndiaye violence amul nag quoi violence affaire du violence politique quoi benn gain la bu tudd Doudou Ka boo xam mooy DG AIBD am benn waayam benn suq boo xam boobu origine guinéen bu tudd euh, bu tudd naka booy mi ngi tudd Alpha Omar Sow booy pël Fuuta la quoi a ne pas manquer mes respects frère mes frères booy boobu mu dëkk yëmbal waaw africain la mais pël la d'origine pël Fuuta waxtaan rek man je respecte les peuples man sama xarit ay ay ay guinéen ne maanaam benn booy boo xam ne au fait il n'a rien compris Kala booy boobu noonu moo nekk moom moo menacé woon Guy Marius Sagna daal di def benn bi Guy Marius Sagna war a dem Nianing ñoom bokk na il paraît ñi attaqué woon Guimard Sagna def benn tweet daal def benn euh, publication Facebook attaqué ne menacé Guimard Sagna dara fekk ko si booy boobu moom moo dajale ay yëmbal la jóge ay déebe lay joobee ñu dajale seen programme dajale seen nervi dem di jàppale Doudou Ka dem fekk Ousmane Sonko ñoo waa passé fa ñuy réew ñoo ñu dal kaw loolu mënul nekk gars yi nga violence politique agression la au fait une partie moo dem song beneen parti parce que léegi nag comprendre kenn amul droit waa ji nee na moom koñ bi mu dëkk fa la gars yi doon réunion yi kon kenn warul opposition yi tamit ñoom ñi ngi topp loolu ñoom it nekk violence gars dugal nañ leen ci affaire boo xamante ñoom dem nañ bay daanu ci pièce boo xamante ne ñoom ñëpp la ñuy diaboliser malheureusement man loolu moom mooy ñoom ñi nga ñoo war a defar dañoo dem ba ñañ daan lañ war a ñëw defar ña doon yàq ña ngi leen di toppandoo di fayantoo ñu dem ba nekk ci benn animosité boo xamante ni ñoom rendre si compte mais nag gis nañ ni lii xew tooñ la dañoo tooñ waa Pastef dañoo tooñ Ousmane Sonko dañoo gaañ ay nit booy bi ko def mi fi ñoom ñu ko def ñu ngi tax dara fekku si comme yeneen ak yeneen yeneen dossiers yi xew rek te day taal réew njàpp injustice